dal leen ak jàmm mbokki internet Yatal Vision ñu dikk ak yéen ca la gën a fees dañ koy daal di door Mamadou Mouhamed Ndiaye RFM Mamadou Mouhamed Ndiaye moomee nag dafa mel ni kuy mbokkam nag bay boo rek nga daal di kay daal di araftu ndaxte kat ki nga xamante ne bii moo di Mamadou Mouhamed Ndiaye jàppes nañ ne ay kàddu yoo xamante ne bii nag daal da koy yëkkati ci revue de presse yi moo mel ni daal. xëy na na mu koy yëkkatee nag dafa xaw a ñàkk teggin loolee nag tax na ba ki nga xamante ne bii moo di eh, soxna kii ni am soxna Amy Dia moom nag ma ngay daal di yëkkati ay kàddu daal di ko jëmale kii di Mamadou Mouhamed Ndiaye ginnaaw ak jàppam moom soxna Amy Dia ba nu yóbbu woon ko foofee ca kaso ba nag wàllum terroriste lañ ko doon toppee moom daal ma ngay xamle nag ne kii di Mamadou Mouhamed Ndiaye jàpp nañ daal da caa yëkkati ay kàddu yoo xamante ne bii rek. daf ka dal di naqari lool boo xewee rek nag mu mel ni moom mii nag mën naa dem ba porte plainte sax ki nga xamante ni moo di Mamadou Mohamed Ndiaye loolee nag ni ki tey jile lan ko daal di xamle moom soxna ami Dia mi nga xamante ne daal ku nekk xam na ko ci Pastef ginnaaw nag jàpp yu métti yi nga xamante ne amoon na ci réew mi ci lan ko tege woon loxo daal di ko yóbbu ci wàll wàllum terroriste daal lan rek lan ko doon toppee moom soxna Amy Dia moomee nag moo daal di nag yëkkati kàddu yooyu jëmale ko ci kii di Mamadou Mouhamed Ndiaye bu RFM